actualité politique économique en ceeg Pape Malick Thiam Pape Malick dañ koy tàmbalee ak Khalifa Sall ak ñi mu àndal. Mhm. ñoom nag daal di nañuy euh, dellu au parti socialiste. waaw réunion bi jeudi bi passé la woon. Euh, bon annoncé woon nañ ko bu yàgg jeudi bi passé la ñu amaloon réunion mais démb la ñu def benn communiqué ne Aminata Mbengue Ndiaye recevoir na ki nga xam ne mooy Khalifa Sall Barthélémy Dias ak Jean-Baptiste Diouf ñoom nga xamante ne en 2014 ñoom ñoo ñoo génnoon dem dañu la dàqoon 60 la ñu woon on se rappelle. Euh, que ñu ñu demoon créer lu ñuy woowee taxawu Dakar après mu nu mujj nekk euh, taxawu Sénégal léegi nag nee nañu waxtaan yi Euh, lu ñu trouvé am na am na am na solo ba pare aussi tamit am nañ ci yaakaar que ñoom euh, prochainement dinañ def sorti euh, sorti publique mm. pour wane li nga xamante ne moom mooy seen moom mooy seen moom seen ànd ñuy wax ne ñoo xamante ni la yàgg nañu Aminata Mbengue Ndiaye ma wax yàgg nañu biir biir parti socialiste famille parti socialiste lañu bien que en un moment c'était difficile et puis ak avènement wu Macky Sall <coughs> moom moo tax ba nga xamante ñu mais nee nañu idéologie yi euh, benn la ba pare gis-gis yi benn la mosuñoo euh, réeroo euh, waxtaan rek moom moo amul woon ci ñu nga xamante ne moo dox diggante euh, diggante Aminata Mbengue Ndiaye ak ñi ànd ak ki nga xamante ne moo di Khalifa Ababacar Sall léegi nag ñoom nee nañu prochainement dinañ def benn séminaire bu nga xamante ne ñoom ñëpp ñu booloo ngir wax ci lu nga xamante ne moom mooy seen feuille de route ci at yi di ñëw Euh, bu ko defee ñu mën a euh, liggéey ensemble. ñu wax ci Mame Boye Diao moom nag mu ngi accuser Macky Sall. waaw Mame Boye Diao moom lu mu wax nee na euh, Macky Sall moom daanaka moo tax ba Pastef gagné nguur gi euh, remporté li nga xamante ni moo di élection yi euh, nee na euh, li nga xamante ni mooy parti Pastef ni mu ko négocier baaxul affaire Ousmane Sonko yi moom moo ko promouvoir li nga xamante ni aussi tamit noonu la espace politique bi divisé wu Macky Sall moom moo ko def ndaxte fu mu jaar foofu la waru woon foofu la waru woon jaar li nga xamante ni aussi tamit waxaat na ko moom di meeru Kolda nee na Benno Bokk Yaakaar ñoom nu ñu wax naa ko sànq ni ñu gérer problème Pastef bi euh, baaxul ba pare aussi tamit euh, débat bi nga nekk ñun à la hauteur ci débat bi nga xamante ni Pastef euh, ci la leen ci la leen woo te loolu défaite la boo xamante ni ñoom dañ ko dund bu baax a baax ba pare loolu aussi tamit moo renforcer la nga xamante ne mooy légitimité ak popularité Ousmane Sonko ba tey ñu jël ñu jël nguur gi moom lu mu wax lu mu jeexalee moom mooy amnistie bi nga xamante ni def nañu ko defal ko Ousmane Sonko ak ñëpp mm. nee na loolu euh, loolu rek la naqarlu ci lu nga xamante ne moom moo génn euh, ci euh, fan yi nii si semaines yi ñu ñu dem balaa ñu nga xamante ne moom mooy waa Pastef di gagné. Mm. lii di lii di élection présidentielle yi. ministère de l'agriculture daal dina ñuy lancer. ab mm. projet de production de semence. bu am solo waaw secrétariat général bu nekk bu nekk ministère de l'agriculture ku ko jiite di di Malick Ndaw euh, moom muy woon jam ñaajo démb dafa teg benn projet bu nga xamante ne dañuy def ay semence semences certifiées pluripluviales euh, maanaam. Euh, fay riz pluvial xaw ma sax na laa koy mën a. nan laa koy waa ceebu ceeb waa ci ci ci waa ci nawet. waaw loolu loolu la riz moom mooy euh, semence certifiée waa jiw yi nga xamante ne mooy ceeb bi bu taw rek lañ koy lañ koy mën utiliser. Euh, projet boobu nag ay <laughs> nee nañ nee nañ ay bon sama wolof bi c'est un peu alambiqué mais bon <laughs> projet bi dañ ko teg. Euh, pour euh, ay borom xam-xam xalaat nañ si ñoo xamante ne euh, ay chercheurs aussi tamit xalaat nañ si ñu koy ñu koy jëmmal ci xamante ne Sénégal centre est ak sud du pays foofu lañ koy foofu lañ koy bayee ki nga xamante ne moom mooy Malick Ndao nag ji jiite projet bi nee na dina tax ba nga xamante ne tool yi nga xamante ne mu nekk Sénégal yëpp muy toolu ceeb yi ñu mu ñu gën ko mën a protéger gën ko mën a sàmm ba nga xamante ne Sénégal lu ñuy wax ni dinañu auto en ñu mën fa accéder euh, dem si région wu Fatick Thiès Kaolack Kaffrine Tambacounda daanaka région Sénégal ba si Ziguinchor région Sénégal yëpp dinañ fa mën a dem ñaax ñi nga xamante ne ñoom ñooy baykat yi ñu gën a mën a ñu gën a mën a def contrôle semencier boole ci ay technicien bu ko defee projet bi euh, mën a euh, mën a mën a yemb euh, mu jeexalee ne ki nga xamante ne moom mooy président Bassirou Diomaye Faye moom moo leen dénk loolu yëpp que Sénégal am agriculture boo xamante agriculture bu yaxan boo xamante ne bépp sénégalais dina si mën a gis boppam bu ko defee Sénégal mën a bañ a li nga xamante ni mm-hmm. moom moo di moom moo di ceeb xibaar yi am na solo damay rebondir rapidement fi nga xamante ni moom nga jeexale muy wàllum agriculture. Mm. Euh, man bokk naa ci ñu jàpp ni agriculture mën na développer Sénégal. Mm-hmm. mën na yóbbu Sénégal fi nga xamante ni tey ñëpp foofu lañuy ñuy xaar mu nekk secteur bu nga xamante ni euh, difficulté yi ci nekk bari na lool lool lool autosuffisance en riz bi ñu ko dalee wax. Mm-hmm. yàgg na à quand l'autosuffisance en riz au Sénégal. Mm-hmm. on espère que régime bi nga xamante ni ñoom ñoo nekk en place dinañ ko réussir et que dinañ agsi ba foofu. waaw bon pour man volonté politique am na. su Macky Sall propagande que que leneen quoi parce que en deux en 2017 Macky Sall la waxoon ne dinañu autosuffisant en riz ba ba léegi gisuñu gisuñu dara mais pour man pro véritable problème bi moom mooy amuñu ay moyens yoo xamante ne dañu mën a jàppale baykat yi du coup dañuy jël xaalis bu bëre. suñu xaalis fii di dem di koy yóbbu bitim réew di jënd ceeb di ko andi fii. Mhm. loolu da lay appauvrir mais su fekkee ne da nga teg les moyens jox baykat yi euh, def ci à fond waxuma par exemple chaque mhm. chaque période boo xam chaque période semencière nga jël ay jiwu dem xool trois baykat pour mbiru politique woo ay caméra ñëw mhm. filmer la loolu pour mën résoudre problème bi il faut des hectares yoo xamante euh, baykat yi dinañ ko dinañ si mën a profité bu ko defee mu nekk une grosse production boo xamante ne après. ay tonnes yu tonnes que

agriculture bu nga xamante ne bu yaxan bu ko defee parce que Sénégal autosuffisant en riz moom mooy euh, plusieurs problèmes yoo xamante ne. Mhm. Euh, dañ ko résoudre. te ñun riz ya daanaka ceeb mooy suñu lépp. moi je pense que ah. yu. voilà en dehors même des moyens yu état waroon moi je pense que les les les les les les opérateurs économiques là. Mhm. yuy dem di jëndi fee euh, dañu war a am benn benn attitude patriotique ba xam ne ils ont beaucoup de moyens c'est vrai que suñu. investiree ci suñu agriculteurs yi. Euh, ils vont continuer à gagner parce que dinañ seen dugal seen après ñuy jënd li nga xam ne moom la ñuy jaay mais euh, foofu foofu la euh, en fait li ñuy dem jënd nii. Mm-hmm. ci la ñuy gën a am xaalis mais xaalis boobu ci ñoom lay nekk mais bu fekkee li ñu am ci xaalis dañ koy mobiliser pour ak accompagner les agriculteurs peut-être ils auront moins. ils ont mm. gagné moins que li ñu doon gagné mm. mais ils seront beaucoup plus utiles à la population et ils seront beaucoup plus utiles aussi à cette politique bi nga xam ne moom la ñu bëgg pour pour pour daanaka euh, atteindre li nga xam ne moom mooy autosuffisance en riz donc je pense que il faut que euh, esprit patriotique boobu noonu mu mm, nekk si ñoom pour que ñoom tam ñu ñëw bokk ci ci kii bi ci élan bi état bi jël pour mën a yegg ci loolu waaw euh, non man kay je pense que ni c'est une bonne chose ah comme ni nga waxee agriculture je pense que mooy base mooy base développement parce que Sénégal à chaque fois ñun Afrique je pense que dañuy brûler li nga xam ne moom mooy les étapes donc balaa ñuy wax développement man je pense que développement fi mu commencé mooy nit ki foog mu suur ba pare. Mm. te je pense que pour nit ki suur il faudra agriculture donc foog nit ki suur ba pare pour mën a dem ci benn primaire mu génne ko ci boppam ci boobaa lay mën a productif pour ñu mën a atteindre li nga xam ne moom mooy développement de l'autre côté si mënuma comprendre pourquoi fii Sénégal ba tey mën ñoo jot li nga xam ne mooy autosuffisance en riz parce que Sénégal je pense que ni on est bien bien bien bien bien structuré ci ci ci wàllu bu ne c'est-à-dire mm. yàlla may nañu ci lépp cest a dire am nañ suuf am nañ suuf benn am nañu ndox mm. d'abord dafay taw nappe phréatique bi fa am nañ aussi am nañ aussi on a on a une jeunesse qui donc boo demee tey ci Casamance je pense que dafay dafay taw plus de sax 4 mois plus de 5 mois donc boo demee ci ci nord bi on a on a on a le fleuve Sénégal qui est là-bas donc am nañ ay lac am nañ lépp donc man mënuma comprendre ba tey dit volonté politique volonté politique peut-être ñi fi nekk dina am changement mais man ba gisuma volonté politique parce que je pense que on est bien euh, structuré. tout ce qu'il faut pour vraiment Sénégal am autosuffisance ci wàllum lekk. Mhm. ak ci wàllum ci wàllum naan parce que boo xoolee les atouts yi nga xam ne Sénégal am na ko donc gisuma dëkk boo xam ne am na ko te mënul satisfaire ses mhm. besoins en aliment. balaa balaa ñoo jàll ci leneen ceeb mi moom nañu def Touba am ceeb bu nga xamante ni ceeb bu am qualité lay doon parce que Kajoor am na ceebu mbay moo xamante ni boo ko toggee xaaral ma ñëw xaaral am na ceeb boo xamante ni boo ko toggee day bari xeer benn am na ceeb mbay boo xam boo ko toggee balaa moo sedd bu seddee doo ko laal bu tàngee rek nga koy lekk et ça c'est pas bien. donc yooyu noonu yëpp day jouer ci qualité bi mais chercheurs yi démb ak techniciens yi nga xam ne ñoo nekk ministère ñoom ak waa waa euh, euh, ISRA ñoom ñoo si liggéey ci bi boobu euh, nee nañu. Euh, gis nañu ay ay na ay yenn ingrédients yoo xamante ne foog. dañ ko ci ko ci yokk. pour am qualité boobu noonu. yooyu yëpp nag bon c'est réuni mais problème bi moom mooy par exemple xaalis bu nga xamante ne moom ngay réunir. pour def y avait juste pas la volonté. waaw mais mais mais boo par exemple chaque année état Sénégal na jël plus de 300 milliards di ko jox ñi nga xamante ne ñooy à l'extérieur yóbbu ko foofu pour andi ceeb. ba fii nii te loolu euh, il y a deux ans Inde dafa Inde nga xamante ne ñooy jox chinois yi ceeb. Mhm, mhm. dafa amoon benn kii benn. Euh, changement climatique bi ay inondation seen ceeb yi yàqu affaire yooyu noonu mais sinon ay après ñoom dañoo mujj di kolo kolo fii dem Thaïlande uti ceeb dem fee uti ceeb te loolu mënuñu daal par exemple ñun nga xamante ne si indi indien lañu jël si waa Thaïlande yi imaginer par exemple ñooñu ay jiyee dalee ñun mm. nan la ñuy def mm. donc loolu moom moo tax nga mën a maîtriser sa agriculture mu am mu am solo merci beaucoup Mame Boye Diao mi accusé président Macky Sall Kajoor moom léegi sax moom li mu wax tamit moo bon mm, dégg ñuy wax ci sens boobu bari na. man daal politique bëgg naa ci loyauté et puis euh, ça va passer à tey ñoom ñoo andoon ba ba ba tey régime boobu wàcc na parce que moom c'est au crépuscule de. de de de la fin la la la. la demalee boppam donc tout ce qu'on peut dire. si Macky Sall il est comptable à 100% de de ce qui se passe te euh, tout ce qu'il est devenu c'est quand même grâce à ce Benno Bokk Yaakaar ak Macky Sall ci ci mbaaxam et tout donc ñoom ñii sax mën nañ leen seeni morom ñu ngi leen di reprocher parce que beaucoup disent que euh, li yàqal Macky lu ëpp ci ñoom la jógee les DG et les ministres yi nga xam ne mm. fal na leen te fi mu waroon nekk moom yeggaluñ ko fa donc euh, ils n'ont qu'à rester grands dans l'opposition ou bu mhm. fekkee da ngay jógee opposition dem faneen aussi nga dem fe mais tu assumes mais bàyyi bu bàyyi ci ginnaaw voilà yenn yenn yenn <laughs> ku fàttaliku da ngay soxla loolu olof bi wax je pense il il il essaie il essaie. Sénégalais yi rek ah tout simplement parce que ñoom amatuñ lu ñu wax amuñu lu ñu wax actuellement. je pense que amatuñ lu ñu wax c'est-à-dire actuellement responsable la ut fautif la ut moo tax Macky Sall rek la ñu mën a la du doigt mais ñoom personnellement xam nañ exactement li nga xam ne moom moo fi nekk xam nañ état d'esprit sénégalais yi xam nañ sénégalais li ñu bëggoon xam nañ amuñu lenn luñ mën a wax li ci des mooy jël benn benn personne comme lu mel ni le président Macky Sall di ko jéem a def le fautif di ko jéem a jox le responsable pour essayer d'exister tout simplement mais ñoom en âme et conscience ils savent que ne vraiment donc la page est tournée. question d'existence et de survie sax ci la ñuy wëyal euh, yaa ngi koy wax sànq. Euh, Khalifa Sall et ses camarades. Mhm. dañu dellu fële nga xamante ni moo di parti socialiste. je sais pas si vous vous rappelez. waxtaanee nañ ko fii bi ñu leen dalalee fii wax nañ leen est-ce que doo leen dellu PS. pour vraiment ngeen gën a mën a am doole gën a mën a yëkkati affaire yi et aujourd'hui ils l'ont fait. waa PS tam est-ce qu'ils ont choix wala est-ce que mënoon nañu def leneen. bon euh, euh, euh, rien n'est plus tard que euh, plus tard que jamais quoi. je lu lu lu si kii rek moom mooy c'est un regret quoi c'est un regret que mënoon nañoo def pour man amul benn utilité que ñu def élection présidentielle imagine par exemple avant élection 2024 yi nii par exemple ñoom ñëpp ñu réunir ak seen ak seen ak seen ancienne yi Kajoor même qui avait waaw qui avait dit ñu seen ancienne seen ancienne base yi pour man en fait loolu moo waroon moo waroon dem pour man Moustapha Niasse sax mm. waroon na ci waroon nañ ci ko xëcc ñu bokk ci mu nekk même famille ay Alioune Sarr ay Malick Gakou ñoom ñëpp parce que ñoom ñëpp benn famille politique la voilà ñoom ñëpp voilà ñoom lu mooy mooy mooy les les gauchistes là ñoom Abdoulaye Baldé gisoon nañu si élection yi àndoon nañoo Khalifa Sall mais pourquoi pas ñooñu ñu boole woon avant élection yi dina nekk au moins Khalifa Sall lu mu am euh, lu mu am je pas 1 pour cent moom zéro xaw ma ñaar pour cent mais mënoon na mënoon na Euh, score am mu nekk 3 wala 4 pour cent bien que sax c'est ça c'est futile mais je veux dire que di nga am benn représentativité élection législative yi muy ñëw pour assemblée nationale au moins di mën a rivaliser ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, mën a peser ci opposition bi mm-hmm. donc euh, ça c'est important mais boo boo bàyyee ba léegi nga koy def nga ne da ngay dem retrouver waat et puis euh, de reconstruction mu ngi mel ni nationale boo xamante ni c'est c'est à la ramasse ouais. et puis après yow nga woo pour reconstruire donc pour man dafay jafe parce que mhm. Khalifa Sall am amul Aminata Mbengue Ndiaye c'est out Khalifa Sall pour man aussi tamit politiquement euh, dafay jo parce que y a beaucoup de jeunes yoo xamante ni nekk si mhm. ginnaaw bëgg a bëgg a jël ay ñoo xam ne ñii si ginnaaw bëgg nañu nekk élection 2029 présidentielle yi wala sa échéance yi nga xamante ne locale yi wala législative bëgg nañu positionné wu donc pour man reta en fait genre regret la quoi regret boo xam ne koy rëccu surtout depuis vingt ans bu nga xamante ne euh, perte nañ lu nga xamante ne moom moo di pouvoir bi ba léegi c'est difficile ñu euh, positionner wu ci lu nga xamante ne moom mooy au devant de la scène c'est l'ego qui a eu parce que avant élection yi beaucoup beaucoup même même des gens yu bokkoon ci parti socialiste les yoo xam ne dañoo gelé woon seen activité ils avaient la question ñoom dañoo waroon redu xaw ma nag kan moo waroon dox jéego wutali moromam pes ñëw kii wala kële ñëw moo waroon bàyyi woo gars yi ñoom ñu génn ba ñu ànd ak Macky mais waaw mais nag loolu noonu comme comme ñoom dem nañu fee c'est-à-dire lu lu taxaw def nii baax na question d'ancienneté la et puis le, le parti socialiste mooy bu mag bi donc euh, que ñoom ñu dem moo gën a yomb que le parti socialiste dem fekki leen donc c'est une bonne chose sauf que ils auraient pas dû laisser le l'ego prendre le dessus waroon nañu remobiliser depuis le début léegi nag am na il na comme ni nga waxee il n'est pas trop tard pour bien faire euh, la la la la chose politique va se se redessiner ah parce ah, que oui. tey imaginer ñoom bu ñu dajaloo Jean-Baptiste boo xoolee ñi mu fi lim yëpp c'est des gens yu yu seen base donte ñàkk nañu mm. pouvoir euh, euh, politiquement ils ont le leur base. Mhm. donc ñooñu ñëpp bu ñu bu ñu dajaloo sa sa sa ça day dina teg beneen. beneen position boo xam ne bu am solo lay doon donc bu ñu ci yokkee nag ay. Euh, Euh, Aïssata Tall Sall loolu yëpp c'est c'est mën na nekk et tout ça. envoyé Aïssata Tall Sall envoyé woon sax euh, ku ko ku ko. c'est ça donc après euh, bon léego bi Pape Malick di wax aussi ça après léegi bu ñu bu ñu dajaloo yëpp léegi kan. mooy jiite mooy jiite. le problème c'est ça. non man man je man je pense que c'est le c'est le c'est le moment c'est le moment pour ñu war a mën a pour ñu mën a booloo. parce que bañ ko waree def mooy yaatu. mais avant les élections avant les man je pense je pense que mënul woon nekk parce que direction parti bi nga xam ne moom la PS jël ak ñoom direction bi nga xam ne moom lañ jël bokk bokkuloon parce que PS dafa ne woon dafay bokk ci li nga xam mooy coalition Benno na ko am alors que ñoo ñee nañ li nga xam ne moom mooy seen direction ba pare donc actuellement je pense avant les élections c'était pas possible pour ñu am pour ñu am pour ñu am ñaar ñu mën a ànd parce que les les intérêts divergent kii dafa taxawee nii kii taxawee fii kii taxawee fële Benno Bokk Yaakaar. tasaaroo noonu moom ci la ñu waroon. mais tu te souviens tu te souviens fay universitaires yi nekk biir PS ñoom génn nañu ànd dem ànd ak euh, dem ànd ak Khalifa Sall je pense que vous vous souvenez. voilà juste à la élection mais ba tey direction direction mm. parti bi ñoom lii. Mm-hmm. yoon bi ñu jëloon c'est-à-dire nekk ba tey ci coalition. discipline Benno Bokk Yaakaar c'est-à-dire sëy ci coalition Benno Bokk Yaakaar. am benn candidat mais loolu moo dul yoon Amadou Ba pour kii maanaam Amadou Ba sax. moo tax ma naan Amadou Ba Amadou loolu moo dul yoon sëy ci biir sëy mais sëy ci biir kii moo dul yoon. c'est normal c'est normal c'est pas c'est normal ou c'est pas normal je sais pas mais dama ne avant les élections c'était pas possible parce que direction yi nga xam ne moom la parti bi jël ak ñoom direction yi ñu jëloon mënu woon bokk maintenant nag loolu jàll na je pense qu'il est temps ñu mën a parce que vraiment opposition amatu fi soxla nañ une actuellement pour faire face à ce gouvernement opposition amatu fi waa benn bokk opposition am na ma yaa comme parti politique bi jeex na dama leen bëggoon wax waaye yéen ana Amadou <laughs> la ñu loolu la il a bien fait sax. Euh, noppalu j'espère que j'espère que du fi def mais mais j'espère que du fi def. il a subi beaucoup de coups le gars. Ah mais mais mais j'espère que du def euh, du fi def opposant à la Idrissa Seck quoi. Hmm? genre par exemple wax. non mais de a jamais été bavard même bu waxul. mais dina am comme ça def xool baax a baax une mm-hmm. lecture de la situation xool ban tànk lay ñëwaatee. Mm-hmm. Mm-hmm. parce que ni mu demee c'est mais mais problème mu euh, euh, beneen problème am na aussi tamit. Euh, nu muy taxawee biir biir déjà biir APR ak biir Benno Bokk Yaakaar. bu fekkee Macky Sall moo jiite ba non mais parce que am na ñoo xamante ne par exemple Benno Bokk Yaakaar am na ñoo xamante ne génn nañ ñu ngi koy ñu ngi koy wax sànq waa PS par exemple. ñoom ñoom ils se retrouvent je sais pas am na beneen parti politique ne ñu génn ñoo ñu wax dañuy demal seen bopp Macky Sall. je pense que vous vous bi mu peetee nguur gi presque une semaine plus tard dafa bind ñaari lettre benn bi pour Benno Bokk benn bi pour APR wax ni moom dafay rester président. ba mhm. léegi. Mhm. te loolu pour man problème la le fait que euh, le fait que Macky Sall quitte le pouvoir. newoon na ba pare aussi. ne woon na. ki mu jiital. Mhm. bu gañee mu bàyyi ko parti bi. waaw mais sauf que Amadou Ba gañewul comme ni ko ñëpp xamee mais moom dafa bind benn lettre ne moom dafay rester président parti bi ba léegi mhm. est-ce que loolu ça signifie que ça signifie que échéance yi nii moom dafay bokk ci ay élection que soit mu nekk législative wala présidentielle on ne pas donc te problème bu fekkoon Macky dafa retiré wu mhm. nañu wax légitimement moom moo nekk Euh, ki nga xamante ni mooy jiite parti mais Macky Sall muy fi ba léegi te Macky Sall bu fi nekkee donc obstacle la munoo munoo même su fekkee dem nga présidentielle bi yaay am nga trente cinq et quelques pour cent munuloo ko munuloo ko devancer donc loolu aussi tamit problème cas boobu fokk ñu. fokk ñu fokk ñu ko donc pour man aussi tamit foofu la ñu foofu la waa benn mbokk yaakaar di jëm. pour man suspense la ci puis y' a trop de questions aussi si toutefois président ba tey président est-ce que y aura des gens qui vont suivre ki fa nekk parce que ñu bëri ñu nekk tey. Mhm. Benno Bokk Yaakaar wala APR Macky Sall moo leen fa bàyyi. waaw bien sûr bien sûr xam nañ bu baax Amadou Ba ne fait pas l'unanimité au sein ko. xam nañ ko bu baax a a baax donc euh, Kajoor li mu wax je pense a xoolaat bu baax nga xam ne moom moom mooy toogaayam xool bu baax a baax li nga xam ne mooy langue politique je pense que politique ay ay positionnement la ay cons la tout instant mën na am benn circonstance boo xam ne mm. dina ko favorable bu ko favorable bu ko saisir ko je pense que c'est la posture à adopter oh, aussi je sais pas boobu oh, yéen a mm-hmm. mm-hmm. pour man Mame Boye Diao dafa bëgg a transhumé loolu dafa a daa bëgg dem transhumé. bu defee loolu dina la bett. non mais et puis c'est c'est très facile de toute façon raccourci bi euh, yoon bi gudul quoi ñoom ak Sonko ñoom xamante ne liggéey nañu ensemble et tout donc da leen di draguer. et ils se sont jamais jetés des donc euh, ay copains la ñu <laughs> bis bu bis bu bis bu bu mu bett. kenn voilà. on on attendra de voir la suite merci beaucoup jaajëfal nañ leen bu baax a baax mbokk yi des leen ak ñun nag léegi léegi dañuy dalal suñu gan fas yéene si ak moom waxtaan bu amaam solo avec la complicité de la régie ma proposé leen ngeen seetaan benn clip de temps que ñu installé suñu gan et juste après ñu dikkaat ci plateau bi.